waaw kay mbaay soxna Mbodja Mbaye ñëwaat nañu vidéo bi dama bëgg xoolal ñu jëlal ma ko ndànk di ko bin bin def ko silence waaw e eh, Mbodja Mbaye lépp lu mu wax ba génn ko ñu confirmer ma ko ci jeeg jeeg jaa may confirmer ndànk-ndànk barke Serigne Touba Mbacke duma wax lu ma xamul waaw e xoolal ana jeeg bi nga xam ne tey dafa pare di daa bëgg jëkkër nopp ko piir de toog di sey nee na ma fu parfum nekk tuuraay sër dara dama ko jënd nag meublé day meuble rek ba mel na xoolal ku jëm Paris waaye xam nga bu guddee luy problème am njege naay soxna boo jëmbaat te fi déggul wax nekk sawe bi tànkaan la nugg loolu nga am ci place yow kontoo ko di kotti njege naay yow loo xewale ci njege naay xew ci vidéo bu mujj bii barke Serigne Fallou Mbacké am na góor ñoo xam ne ñuy dund ci biir néeg góor ñoo xam ne ñuy dund ci biir néegi maari day taal te lii jigéen ko dund ba xam ne lii c'est pas normal mu njëkk jooy ci ko Mbodia te jëkkëram a da biir kër gi di ko dund ku ma sa gis lii waaye Mbodia Mbaye mënul noppi waaye ni waxante dëgg xamal ndax la tax mu tax moo tax a tax te moo tax mu tax du ma noppi di di ko wax dëgg du neex jéggi ci bari ñoo Mbodia Mbaye dañoo paralysé biir nekk lañ tële moom nañu ñu tële moom ba feebar biir néegi na ku ko xeeb xeeb ba musiba mooy sëy bi barke Serigne Touba Mbacke biir néeg mooy sëy bi man lu may doyee njëgënaay man bay kotti njëgënaay njëgënaay guddi waroo ko sax soxlaa njëgënaay yoon sax ni ko fële jël sa loxob jëkkër gi teg sa bopp bii di ko xool di ko aji bët di lam sax muy firi muy neex waaye loo xelu ba jël njëgënaay ramu tàngi ak si réew mu nga kott ko yow dina ji mel ni yow loola dal mbaa jàmm dal jéggi dafa am ay qualité yoo xam dafa nekk ci ñoom loo wax lii ba dala terees loo wax rek am na loo baax ku ci naka la nga yëg ku ci naka na nga koy dunde waaye gisa ku xeeb néeg ba cof néeg barke si dinaa Muhammad ëllëg di nga màtt sa loxo bi jox ko di nga gis jéeg bu mën néeg xam waaye tool lu waaye bugg a xam-xam boo jaangi wax ñu mel ni boo jaangi wax kenn noppeetu waaye leen nekk ngeen di sàggane yéen jeeg ji am na jeeg joo xam ne doo tëlee biir ne ko yaakaar ne togg ak yàq ak ci dëkk bi nang nangi rek mooy sëy nax nga sa bopp ku góor ki ci biir nay bég nay bég dëgg neexul du bëggeel lañ eh, la fekk dalay maaj loo kon bu la maaj loo ba di mel ko coroner et eh, del maaj ci maaj di maaj ba ca lal ba ngay maaj di maaj ba prier ba wàcc lal bi di maaj ba ca waañ wëllax du ko ba ca duus ba eh, ci mbëggeel bi barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke ab jéeg day pare waaye yow fu sër ne nga jënd fu cuuraay ne nga jënd loo ci xeetu jigéen yi baax nga jënd te yow mënoo dara biir néeg ba ba fa tëddee kootu ñege naay wala nga dëpp man damaa sonn ci jéeg ji liñ may kaas de jii li ñu nekk ci dëkk dëkk bi yëpp ko bëgg a wax mboo jaaj ñëpp a ku wax li wax la ca des xaaj bi yëpp laa la wax danoo saa gën a biir néeg lañ def baleen li ngeen di def ci seen bopp néeg doomu du sëy néeg doo ngay sëy nag parce que sëy tubaab màkk du ko a nangu néeg kese mooy sëy néeg bii bu leen ko xeeb góor néeg la am am biiram waaw néeg la am nga di ko ci bégal di feesal biiram bii mu yor poosam di la ko dox te la ko jox day ree joxu yéen xam ne kontaan na ci yow kon jeeg la muy am ca boroom këram ba mu yor ci poosam bi fii da jox ko su naan nii di wallandu ko ba yaayam léegi mun ko eh dafal ndànk yaay taxawal ñu arrangé mbir mi eh la muy ko ko métta ko lu rëy mbuum dee ca ku wet laaja gerte ga ca waccug diwoon ab jéeg day pare ñi meg néeg man la barke Sëriñ di ko jàpp kaw ba suuf di xool ci ci moom nga di ko tar bii di sëy sëy bi sëy leen sëy bi ngeen di coof sëy leen ko yéen a ngi bàyyi seen loxo de man nag jéeg kottum jegenaay man xaw ma dara laa ci xam ma duma gisub dëng tarkal la gisub ma mën a wéeru gis dënd ma mën a kott man boo di di béggee may kotti njegenaay lu ma ko jaral kon nag vidéo bi jeg ci kotti njegenaay moom góor ñaa ngi souffrir ci biir néegi ñu ngi bëgg a dee seen xol yi dagg na ba wadd waaye jekk nañ changé ko li mu bëgg bëgg néeg ku koy des di rii tam mu neex di sonn ci néeg bi di ko jox a xam eh boo jë du du xolal boo jë du noppi moo tax ay waxam day mitti nag ndax dama koy waxe dama koy sentir teg ko ci dëggam ak heure temps barke Serigne Touba Mbacke njombar loo ko bañ bañ bañ nangu ko ay noppam dafa gudd waaye dëgg du neex te la jox góor ñi bi boo jëm bàyyi wax lii te duma ci jóg tànk rek yéen a ngi def boo jëm bàyyi ñu ngi koy jooy muy jàllale di jéggee koy jooy jéggi tali néeg bay jooy boo jëm bàyyi ba mu lay wax ni nga war a defee ci biir néeg et sa bopp waaye dëgg du neex tamit lii kenn mës koo gis barke Serigne Touba